إبراهيم بردا وسلاما فكان له ضياء صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi nuyu imaam alxaaji wadda ci taxawaay yu rafet yi ndax jullit ñi lislaam bi rek lañu am ku leen ca jiite ku ne moo ñu jiite ci sunu lépp ci àdduna ak àllaaxira yal na yàlla yokk wéram yal na yàlla gëna a guddal fanam moo ñi mu bokkal jumaa ji ñépp di nuyu chef de village moom mi nga xam ni càmmeefu dëkk bi ci loxoom lañ ko wàcce yaakaar naa bu ñu nuyoo woon ñaar ñooñu dinañu ñu yóbbaaleel dëkk bi yépp ñi ñaanal waa dëkk bi yal yàlla sotti fi xéewal sotti na ko fi yàlla fetaay ga moom la ndaw ñi ci jamono bi tàqamtiku ba lu mel nii man fee am te lépp diine waral gollam dëkku diine la gollam dëkku xam-xam la gollam dëkku tarbiya la ci démb ak tey mag ñi it yàgg koo wax ñu di ko dégg mag ñu baax a fi mësa ne waaye bi ñu fi bàyyi ko it bàyyi nañ fi njaboot gu baax gu tedd gu donn seen liggéey booba ba yéege ko foo xam ni kawe na seen njort kon yal na yàlla yàggal ko kon ñu leen di jaajëfal te wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi izni rabbi gànc suuf su naat su baax gàncax gu naat lay jur loolu rek lañ fi gis yal na yàlla dool leen a taxaw dool leen a sàmm di nuy it mbokk ci daayira bi nga xam ni ñoo organiser programme bu rafet bii bu taaru bii bu kawee sax sunuy njot macha allah ci mobilisation bu kawe waaye ci organisation boo xamante yi kuy bëggee l'islam bi boo ñëwee fekk lii di nga xam ni ñi ko togg togg nañ ko ay fan ci ay xalaat ci financement ci ay jéego kon jaajëf war na ci yéen kon daayira bi ñu ngi leen di jaajëfal rafet na lool macha allah di jagleel it nuyoo sunu mag sëriñ Madické Seck bu bàyyi sëriñ Ousseynou Khoudia mi ngi toog noonu ci jotaay bi fekk ci jotaay bi bari na fu ñuy dem ñaare nii lay def wane mbëgteem ci li ñuy dox di xam le ni su ma ko mënoon jot gi may ma ko maa ngi yéen ñoo koy ànd ngeen jëm ñu ànd waaye comme jot gi mayuma ko dinaa fexe ba fu ma mën a rucceeku daw ñëw fekk ay minit ci yéen dinaa ko def kon sëriñ Madické ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay jaajëfal ànd ak sunu mag sunu xarit alxaaji Pape Mor Gueye moom duñ ko présenté kenn ndax Ibnul Muhayyib présenté na ko kër Seexu Canaba it présenté na ko waaye taxawaayam it présenté na ko kon Pape Mor Gueye yuqaddimu sa mooy présenté boppam di am mbégte bu baax ci yéen di nuyu sëriñ As Seck borom ndigal li lépp moom la ñépp la war a wax jërëjëf ndax say taxawaay dafa yàgg rafet ci yoon wi rek bi ñuy ñëw ñu ngi waxtaane lii ba ñu koy commencé xam nga doonul woon fédération booba fédération amagul booba dañ daan jékki-jékki rek mu woote ci benn dëkk waxtaan fa kenn nit ñaari nit ñu aju ci kër Seexu Canaba ni leen organiser wu leen ba ñëw wuy si leen tàkkusaan su ko defee ñu organiser wu mu jóg ñun fanaan nañ ci àll léegi la ñuy def tournée yoo xam ni dañuy départ ñëw mu jeex ñu demaat ñibbi mais mi ngi nii xam na ni dañ daan fanaan dañ daan dem fanaan dëkk sàngam xëye fa dem neen dëkk fanaan fa yendu dinañ toog deux jours yoo xamante ne suñuy njaboot duñu gis booba loolu la liggéey bi laaj jërëjëf Pape Abdallah ànd ak nag ak moyen yu néew ci jamono boobu ak moyen yu néew kon bu ñu demee ba mu toll fii fédération am ndaw ñëpp xool liggéey bi xam ni fi ñu jëm fenn la mooy fi mag ñi tegoon seen tànk donta mënuñ fa àgg ñu nab na bi ba ñu xam ni ñun ñoo ngi nab na bi pour àgg foofu te lépp moom moo ko jiite kon sëñ As jërëjëf ànd git ay financement yoo xam ni ci jamono booba metti woon na torop kon jaajëf day war ci yow saa su ne sëñ As ngi lay jërëjëfal ba léegi fu ñu woote mooy soññee ba léegi fu ñu woote mooy soññee moo xam mu wér moo xam mu wéradi moo xam mu am moo xam mu ñàkk am lu mën a xew kenn du ko xam ci moom gut kon jërëjëf ñoo ngi lay jaajëfal yal na yàlla yokk wér gi yàlla gën a guddal safan di nuyu sunu rak sëriñ Babacar Seck bu bàyyi sëriñ Xasan Seck ci suba la ma bàyyi sëñ bi woo ci téléphone ni ma ndax baa yaa ngi waaj gollam ma ne ko bu baax gollam suñu dëkk mu ma waaw kay kon dem leen ngeen ngeen ngeen teewal ma fa sëñ aas bu toogee ci ndeyjoor nga toog ci càmmoñ sëñ Babacar na toog ci seen wet wettili leen te bum yàkkamti noonu la ko bàyyi sëñ bi waxe sëñ bay tey amoo amoo droit yàkkamti téléphone bi bu sonee di nga ko fay du mën a xew amoo droit yàkkamti di am mbégte bu baax mu boole ñoo chauffeur am sëriñ Ibra Njaay yal na yàlla yokk taxawaay di nuyu sunu njaboot yi ñu àndal sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Seck di doom ci sëriñ Ibrahima Seck bu sëñ Taala sunu doom la sunu xarit la fu ñu jëm ànd ak moom ki tegu ki nekk ci wetam di sëriñ Maxtaar Seck bu sëriñ Madike mii toog ma doon wax ni fu ñu jëm mu fekk fa macha allah moo doon jàng xatmu bi xatmu bi njàngit mi rafet lool waaye nag koo xam ni bi mu bi ko baayam yóbboo daara ja bés ba mu mokkal alxuraan tari ci loxo yi sëriñam sëriñam dafa woo juróom xamal ko ni ko sa doom wattu na téere bi yàlla bi mu ja mu tari ko ni ko ñépp di tare ñu seede ko ci ay loxo yu wuute moom mii doon jàng xatmu ñu ñu jox ko xat mu mu jàng ko kon tey bu ñu ñëwaatee ay baayam toog ay kilifaam toog ak i magam ak i rakkam buñ ko joxee xat mu bi mu jànge ko ni ñun du ñu yëm ndax jàngoon na ko ci ay jamono te xoolu ko woon jamono yooyee sañu ko woon kon yal na yàlla nangu ñaan lépp ñaan la alxuraan di ngeen fi jàng yàlla yàlla nangu ko sëriñ Saliou Ndiaye ñu ngi lay nuyu sëriñ Modou Ngom Diop ñu bokk liggéey bi fu fu ngeen ñu gis rek gis ngeen ko ca wet ga waaye noonu la war a demee ndax maam Amari Ndaak ak maam Daawur Jóob la woon maam Amari Ndaak ak maam Daawur Jóob la woon maam Daawur Jóob mooy maamam kon kii kenn du ko kenn du ko yërëm ci coono yu ñuy jànkonteel ci biir kër gi ñoo ngi lay jaajëfal di nuyu euh, Sëriñ Ibrahima Cissé bu bàyyi coon siise moom tamit taxawaay yooyu la am ci ñun sunu mag la sunu xarit sëriñ Mamadou Madiou Cissé bu alaaji taala Cissé alaaji taala ci canaba kenn du ko laaj kenn dootu ko laaj dafa bay waaram ba mu set moo tax kenn dootu ko fàtte alaaji taala da daan wax ni sëñ Ibrahima Seck borom yaaram xew wu am ginnaaw bi mu génnee àdduna mu mu mu teg fa bagaanam gi ñu ni ko bagaan gi lan la mu ni ay bu ko fekke woon waaw waaye moom tamit xew wu am mu teg fa bagaanam bi mooy cey buñ ko bu ko fekkee woon bañ jox ko kàddu su mosaana wax ñépp bég dinaay nettali benn xissa ci moom ngeen baal ma bay na xaw sayn dafa mës a sëriñ mën Sy ku mës a woo xaritam la woon nag tudde na sëñ Mansour si doom tudde na doomu sëñ Mansour soxna asiyatu doom xanaa cofeel foofu la mën a yem tudde bàyyi tudde doom lay taal def na lool mën Mansour woo ko laata muy àgg mbooloo mu bari jiitu ko fa bi mu dugg see ci saal bi fekk saal bi fees mu ni asalaamaaleykum sëñ Mansour ni kooku Alaaji Taala mu ni ko ah, mu ni ko tardé nga ñépp jiitu ku nekk xam na sëñ Mansour ci yànj ga xam-xam ba bayre ba barke ba yàllaa ko ko defaloon ni ko tardé nga ñépp fi jiitu Alaaji Taala ku yàlla mayoon la mu ni ko sëriñ Mansour tardé wu ma dama mujje tarde bu doon teg ki mujje rasululay day tarde yonent yépp a ko jiitu waaye bi mu ñëwee lépp mat na huwa axirul maadudu fi l fadli awala sëñ Mansoor ni kii tardeetul kii daa mujje ah, yooyu ay taxawaayam la woon ah, yàlla na yàlla yokk ay leeram macha allah di nuyu kilifa yi teew ñépp sëriñ Souleymane Gueye ñu ngi lay jaajëfal président fédération bi liggéey yu rafet yi ak taxawaay yu rafet yi di waa kër maam Ngusaan maa jooje ñooñu fi jiitu téyel ñu tant bi ñu mbooloo mi ci zikkar ak tagg yonant bi yéen lool rek ngeen doon Pape Abdoulaye Mbub nuyoo baa ngi noonu ci say loxo nga jàllaleen ñu ko ci ñépp di jagleel nuyoo soxna yi ñu jagleel bés bi defe naa ni tudd nañ fi soxna Ndogoy Jóob macha allah du noonu la soxna Nogoy Cuun macha allah ak soxna Absatu Jóob yal na yàlla gën a taxawu gën a sàmm ndax lii xew-xewu diine la xew-xewu diine kuñ ci kuñ ci tudd rek tabaarakallah ak soxna Faatu soxna Faatu nekk ku baax man dinaa taxaw ci moom ñaari minute li tax mooy Euh, man bokk naa ci ñi ko yéex a xam ak xàmmee xam nga la waaj a waxoon lam ñu waxoon maag sëñ As dañoo demoon ci benn programme bu maam Malick bu sëñ mën Mansour woote woon ca xombal programme bi rëy lool bi ñu àggee am na góor gu téye ci sunuy loxo bi ñuy door a àgg nit ñaa ngi ñu wër waaye am na ñoo xam ne xam nga seeni yitte da leen a ñor téye sëñ ci benn loxo téye ma ci benn loxo mënuñoo buuse nit ñi bëgg ñoo nuyu kenn duñu jox loxo mu mu naan mu naan sëñ as yow xàmmewu ma sëñ aada xàmmewu ma yéen xam naa leen affaire bi mitti lool genn Maw Maodo Diop Maodo Diop moo doon jottali sëñ Mansour daal daal bi ko mbir mi kiyee mu téye mu téye loxo góor gi nag ni koy eh diw mu ni ko ah, mu ni ko sëñ Mansour da daan wax ni mu ni ko ah, mu ni ko nit ñi ñooy xam nit ki waaye nit ki mënta xam nit ñi dégg nga bàyyil ñii ñu dem yaa leen mën a xàmmee waaye mënuñoo xàmmee benn par benn ah sëñ As day dugg si ci tànt bi ñu ni sëñ As ñëw na ñu tegal ko benn fauteuil mu ñëw toog ñëpp xool ko ñu ni sëñ As a ngi ñëpp a koy xam nan la mën a xàmmee kenn par kenn noonu dañuy dal lu bari waaye ñu ma xàmmee ko ma dem Maroc ziyaari sama sëriñ barzaqul maktum taajul aarifin mu middi kulli awliyaa irrahman abul abbas ahmad at-tijani bi mu yëgee ni maa ngi Maroc moom soxna faatuwaat Wade mi délégation bi mu àndal bi may seet si xaw naa toll ni bi muy dugg si ci tànt bi ñi mu àndal boole ko togg ay teraanga yoo xam ne hôtel bi ma dal bi mu dugg see mi ngi nii ñi yore hôtel bi dañoo ñëw ci man ni ma kii ñi kii ak ñi àndal ñépp mënuñoo dugg ci biir bool yi mu togg ak fir bi yéeg yépp dama mujj wàcc ci óol bi ci biti ci lañ teg teraanga yi ak yépp ak ñi mu àndal ñépp ñu toog waxtaan mujj nag waa hôtel bi ñépp génn ñëw ku nekk jël sa bool di cibb jël ci fur wi jël ci lu nekk ak lu nekk macha allah defe naa ni boobu sax mooy jotaay bu ma njëkk a toog ak moom ma xàmmee lu mel noonu nag bu ma ñëwaatee ci teraanga bu mel nii ma ñu tudd ci aw turam ma yoro micro dinaa ni ko jërëjëf kon yàlla yàlla gën a taxaw soxna Fatou Wade yaag délégation bi ngeen àndal ñépp kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax a baax put maa ngi guddal waaye nag jotaayu diine la te kër Cheikhu Thiénaba moom diine la ñuy mag ñi dañoo baax dañoo fexe ba bëggloo nit ñi sayyiduna Muhammad yonent bi lañ bëggloo yonent bi nee na woon nit ci balaa cofeelam di mat sëkk sëkk ci man dama koy gënal ndeyam gënal ko baayam gënal ko doomam gënal ko lépp lu mën a am moo tax képp kuy natle cofeel goo am ci yonent yàlla muhammad ak sa wayjur sa cofeel ci yonent bi des na sa cofeel ci yonent bi des na moo tax mag ñi kenn ku ci nekk dangay fexe sa taalibe yi nga am bëgg yonent bi rek buñ ko bëggee lépp bu baax maam amari ndaang nag suñu cofeel ci yonent bi mi ngi ko jaarale ci ibnul muhayib moo tax léeg-léeg ñun Pape Mor Gueye mais addu ci ibnul muhayib rek nit ree léeg-léeg nit soppi ree ya def ko ay jooy léeg-léeg mu def ko xaal muy jaayu lépp du bind bi du wax ji mais kañ koy wax la xam nga yàlla moo tànn yonent bi yàlla moo tànn masalan tey jii dañoo sélectionné ci tànt bi ci sortie première dañ naan eh kii jàmbaar la kii la sëñ as tànn kii la sëriñ ba tànn dégg nga ñu ni dëkk bi nañu xool kan mooy jiite ñu sélectionné génne kenn ñu ne ah kii mooy imaamu ratib bi tànn nañ de mais dangay xool ki tànn kan la xool kim tànn kan la yàlla nag noonu la def ci mbindeefam yi bi mu bindee ba pare dafa tànn ci biir mbindeef yi tànn na ci lim bu ñuy wax mil cent vingt quatre mille ci doomu aadama yi téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay junni du noonu la moom la tànn ci ay nit cent vingt quatre mille yooyu mu mu mu mu mu segg leen trois ñoo ci génn muy al mursaluun xam nga yonent yi dafa am ñu yàlla yónni ba pare wax loo leen ab ñoo xamante ni ñu ngeen ngi nubuwa mais wax loowu leen mu génne ci 313 313 yooyu la yàlla seggaat juróom raw ci mooy ulul azmi mu jël juróom yooyu nag segg leen kenn sotti ci première muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax borom ibnul muhayib ni huwa al mustafa al mahbubu taban wa qurbatan allahuma salli ala muhammadin sayyid al bashari wa shafi'i al mushaffa'i fi al mahshari allahuma salli ala muhammadin sayyid al bashari xam nga xam nga dañoo wax ni lii salaatu ala nabi la tey jii boo demoon ci biir téere bi doo ko ci fekk waaye salaatu ala nabi la salaatu ala nabi dañoo wax ni ida kunta fi amrin wa diqta bi xamlihi wa asbaxta fi usrin wa amsayta fi xaraj fa salli ala almuxtaar boo nekkee ci jafe-jafe ida kunta fi amrin yaa ngi ci mbir wa diqta bi xamlihi mbir mi diis lool ci yow ba attanoo ko ku ne lay dal nag jamono mooy wëlbatikoo noonu moo xam am am lay doon wér-gi-yaram lay ñàkk wér-gi-yaram walla problème yu aju ci jamono ak yooyu ñëpp lay dal mu ni bu fekkee da nga cee nekk ba mu diis sa gan ba mu diis sa sa bopp wa bi xam xamlihi attanoo ko wa asbaxta fi usrin wala nga xëy am ay problème wa am sayta fi xaraj wala nga gontu jàpp ni yaa ngi fees dell ak ay bakkaar mu ni boo ci bëggee génn fa salli ala almuxtaari min ali haashimin jullil ci sayiduna muhammad ndekete day dindi jafe-jafe yooyu yëpp maama mari ndaang nii kon nañu jël salaatu ala nabi bi ñu di ko rabbe abiyaat yi nga xamante ni moo nekk ci téere ibnul muhayib moo tax bu ñu jàngee benn bayit huwa almustafa almahbubu taban wa qurbatan هو المصطفى المحبوب تبقا وقربة تقدس ذاتا ثم قبرا وتربة أقول وأعنيه هوى ومحبة أحب رسول الله شوقا وحسبة لعلي غدا عن حوده لا أحلو اللهم صل على محمد للبشر هو المصطفى المحبوب تبعا وقربة هو المصطفى المحبوب تبقا وقربة تقدس ساتا ثم قبرا وتربة أقول وأعنيه هوى ومحبة أحب رسول الله شوقا وحسبة لعلي غدا عن حوله لا أحلأ اللهم صل على محمد سيد البشر ليسان وشفيع الرسول صلاة باينون benn day lugg xaal bi nekk ci ibnul muhib xam nga ibnul muhib leer la leer la aji Baay Moor mii mës na ko way ci benn wàcce téere ca na ba dañoo dem ba sëriñ bi génn te li des ci téere bi bari mu mu mu mu rajas ko loolu dafa rajas téere bi waaw noo ko tuddee ràmbal maanaam bañ a duggal salaatu ala nabi bi ci biir xaal la def ñépp jamono boobu dégg nga léegi nag maam Amari ni xaal boobu noonu la koy lugg mooy salaatu ala nabi bi moo tax boo jàngee bayit bi ba mu daanu mu ni julil ci yonent bi déglul bayit bi li mu wax mu ni huwa huwa moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam damir la bu dem ci moom ndeysaan la ilaha illallah mu ni huwa moom yonti yàlla muhammad al mooy ki yàlla tànnal boppam ci lan la ko yàlla tànne tabaan jikko ju sell la ko na moom yonent bi zaatan nafsan wa xaqiqatan maanaam jëmmi yonent bi moo sell xaqiqaam moo sell zahiran ak baatinam moom la ko yàlla tànne baneen ba ca des mooy summa qabran wa turbatan xabru ba ñu denc yontu yàlla Muhammad dafa tedd moo tax maa ngi ndokkeel ñi demoon ziyaare yonent bi dem ba ziyaare raw doom bu tedd booba ren jii ñépp ñoo ngi leen di ziyaare yal na yàlla nangu seen aj dëgg la amet dëgg la waaye summa xabran wa turbatan nee na xabru yonent bi dafa sell suuf sañ ko denc sell xoolal waykat bi nee na yaa xayra man dufinat بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم nee na bërëb bu tedd ngi nii bërëb dafa dox ba àgg ci rawdu yonent bi tànk yi mel ni lu damm mënatu dox leer gi di yéeg ba agsi ci digg boppam cuub xol ba mu di jóg li nafsi fidaun waaye njote la sama bakken fidaa li qabrin ñeel bàmmeel boo xamante ne anta ya rasulallahi saakinuhu yaa fi dëkk yow yonent yàlla muhammad tamadu la ëppi bu moom yonent yàlla muhammad la saak yonent bi ni kaabu deretam niil na ku ko rey sa yaram xaraamal na sawar ñépp di wër kaaw kaaw xarit yim am yëpp kum ci dem rek nga ni ko di kaabu yow mënatumaa def ak yow nen li nga def dafa rëy wa qaala kullu xalilin kuntu amaluhu laa ulhiyannaka inni anka mashghulu mënatumaa def ak yow nen li nga def dafa rëy léegi nag kaabu bi mu demee ba sonn mu ni kullum ni unsa wa in taalat salaamatuhu yowman ala alatin qad baa mahmulu mu ni koo gis jigéen a ko jur te ku jigéen jur lu jamono yàgg-yàgg bi nga dee ñu teg la ci jaak yóbbu la suul la kon lenn rek a fi ne dee wala dund maa ngi dem ci sayyiduna muhammad baalu taaq kaabu ñi mewut a dox bëccëg ndax fu mu dox nit ñi nit ñëpp a ngi koy wër kaabu day nëbbatu bëccëg yi bu guddee muy xuus guddi yi ba àgg ca pénc ma fekk yonentu baa ngi taxaw di daawa di def xutbaam bu tedd ba di waar jaami yàlla yi kaabu ni tëll ñëpp ni bëret ni kaabu miñ doon wëra a ngoog pour rey ko kaabu naan kul kaabu naan ko mahlan mahlan hadaka allazi aataaka nafilata alquran fiha mawaizun wa taftilu unbitu anna rasula allahi aw'adani walafu inda rasulillahi mamulu ndeysaan ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illallah kaabu ni tëll ni ndeysaan <laughs> sallallahu xam nga Muhammad yonent bi yonent bi ay gën a yaatu ñëpp dënn bi Kaab bu di ñëw naan ko wax nañ ma ni dangaa joxe information ni ku ma rey sama deret niil na waaye jàpp naa ni bu nit di mën a jéggale yow rasulullah yaa war a gën a mën a jéggale ndax yow la ñu jox la muy ndollent lu rëy boo xamante ni dañ koy wax alquranul karim fiha mawaizun wa tafsil lépp loo xamante ni luy waar doom aadama la ak luy tàqale diggante dëgg ak neen ma nga ca biir man kaabu maa ngi nii ngir sukk ci sa kanam jéggulu la di ko bàgg ba agsi ci yonent bi yonent dañuy bëreet jóg taxaw summi manto ba mu soloon di xutba laxase ko kaabu ibnu zuhayru ni kii jéggal naa ko jéggal leen ko loolu tagg yonent bi moo ko may aqulu anihi ndeysaan <laughs> sallallahu alayhi wa sallam aqulu maa ngi wax man borom ibnul muhayyib wa aanihi ma yéene ci sama wax ji hawan jërëjëf jazakallahu xeyran xëwan nee na bëgg gu fees dell moo ne ci sama xol bi jëm ci jur bi kañ la bés pénc topp ko rek yaa rasulallah mata saa bés bi ñuy wax bésu taxawaay bi kañ la yitteel ko lool yonent bi ni ko maza ahdata laha waaye yow loo préparé bis pénc bésu pénc dañ koy waajal keroog wax naa ni amet bul toog maa ngi ñëw dama wax ni gaa yi doon dem màkka xoolal misaal mi yàlla di misaal nit ki bu faatoo mënalatul boppam dara ñoo ngi leen di jaale sunu baay baay Malick Niang nekkoon xaritu baay Cheikhou Thiénaba di ko wét ci biir jërëjëf di ko wét li ci biti jël njabootam deretam tudde ko ko waaye nag tappoog moom ci biir ak ci biti baay as ko lool mu bëgg ko lool keroog bi muy génn àdduna ci ci ci ci kër Baye sëriñ Xasan Seck fa ko yàlla mataleel loolu kóllëre la ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk ay leeram jéggal ko defal ko yërmande di ko jaale njaboot gi ñëpp xam nga nit ki bu faatoo ruu gi génn na ci moom xoolal dañ koy wat dañ koy sàng dañ koy sang dañ koy sàng dañ koy jébbal boromam maqaama boo mën a am am-am boo mën a am ba faale kenn boo génnee àdduna ñooñu ñoo nga ñàkk faale di wane ngëneel ci ñoom ndax sa askan walla sa xam-xam wala sa daraja wala sa leneen ñooñu ñoo lay jël boo watoo ñoo lay wat boo sangoo ñoo lay sang ñoo lay sang ñoo lay jël nag jébbal la sunu borom ndax koo gis day delluwaat ci yàlla ñaar a composé doomu aadama jëmm ak ruux shaxsun takannafahu suraya wassara fal jismu kuwina min xasiisi lxirmat wa ruuxu kaana nashu'ahu manzuatun min zalika almalai alaliyi alamjadi fa yuxinnu za li samaihi bitasacudi wa yuxinnu za li ardihi bitasafuli ñaar ñi composé nit mooy jëmm ak ruu xoolal bu ñuy tàqaliko jëmm ci suuf la jóge moo tax yow yaay kan ci suuf rek nga jóge minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra sa lépp suuf la dégg nga te bu la taqee nga faxas ko ruu ma nga jóge ca pays yàlla bu tedd ba ca xadaratul ya moo tax bu ñuy tàqalikoo ku nekk sa cosaan nga jëm jëmm ji bu ruu gi génnee dootul yëngatu dootul def dara dañuy jël laxas rek dem ca armeel ya gas ba mu xóot ñu dugal ko fa ca biir yàlla fekk ko fa ak ruuxam ak i malaayikaam lijjanti ko keneen du fekke dégg nga nit ki faatu noonu lañ koy def xoolal nag yow mi dem Makka war a dem ziyaari yonent bi war a jooxal sa farata yaa ngeeg ruuxu gi yàlla jëlagu ko moo tax lépp yaa koy defal sa bopp yaay sang sa bopp boo demee ca biiru Ali yaay wat sa bopp yaay sang sa bopp yaay sang sa bopp armal ba dootoo dese dara bu dee góor tajarrudu min al maqiit wal maxiit ñaar day mucc ci yow lépp lu pusaw ñaw doo ko sol lépp luy wër nit doo ko takk jamono dox na nag ba léegi waxtu julli yeeg yooyu ci montre lañ koy xamee ñu ni kon montre mënees na koo takk nit fu mu nekk dina dund alal ji nga yor daa am foo koy denc te amoo poos ñu may la caméra booy takk lu dul ñaar yooyu dooto dootoo ko takk te jarrudu min al maxiit benn wal maxiit ak li la wër beneen bi ci des mooy yaay parfum sa bopp boo génnee yaay jibbal sa bopp yàlla looy wax labbayk allahumma labbayk ñëppay àndandoo weex tal laxasu fekk jamono boobu ñuy wax loolu ñoo ngi sangu farata ba set laal parfum bu baax ba pare nag jàpp ba sell di tudd yàlla labbayk allahumma labbayk yàlla wuy si naa kee dañ koo jël jébbal ko yàlla ndax booba ruuxu gaa fa jóge mais ki yor ruu gi moom mooy demal jébbal boppam moo tax góor yàlla yi naan nañu jox sunu bopp yàlla bala ñu ñaa bala ñu ñoo jox yàlla nit kiy dund bu faatoo ak ki nga xam kii faatu ni ñu koy jébbale yàlla ak ki nga xam ni mi ngi dund nu muy jébbale boppam yàlla moo tax buy dem ñi naan ko fayal say bor tàggul say mbokk baalonteel ak ñoom àq dangay ngay wuy yàlla am na ñuy dem delsi am na ñoo xam dañuy dem duñ delsi am na su sama benn xarit ku saf xorom la borom xam-xam la gàmmukat la dégg naa ko bi mu demee Màkka ba ñëw dama ko ziyaar si ma dégg ko mu ci benn vidéo mu wax ni dafa àndoon ak benn rakkam mu ni bi ma demee ba àgg Màkka nee na li ñu daw dafa bari ba àgg Màkka bi ñu wàccee kaaba gi ñu daan dégg nga xam ni bu ñuy julli moom la ñuy dàkk te sunu bët du ko gis nee na ñuy waaxu wuti ko bi ñu demee ba àgg ca kaaba ga talbiya yi nit ñiy wax tudd yàlla ci ci ci langue bu nekk nag ngay gis nee na loolu neex ci xolam mu ni ko diw mu ni ko ah, mu ni ko nañ yàlla nañ ñaan yàlla des fi fii neex na de mu ni ko dee diw nañ delluwaat fañ ñu xamee ci senegal nañ def rek li li ñu war <laughs> dégg nga moo tax nit ki mooy jébal foofu boppam yàlla moo tax borom ibnul muhayib nii aqulu maa ngi wax wa aanihi ma yéene ci wax ji hawan wa mahabbatan bëgg yonent bi maa ngi seedeel ñépp ni uhibbu rasulallahi dama bëgg yonent yàlla muhammad sawqan ci cofeel wa xisbatan ak ci mbëggeel ñu ni ko waa yow lu tax ibu rasulallahi shawqan wa xisbatan mu ni laalli gadan an xawdihi laa uxalla li tax ma bëgg yonent bi mooy ëllëg yowmal qiyaam mbalkaam moomee kenn duma ci dàq mbalkama mooy fan mooy kawsara keroog bi yonent bi amee doom xam nga doomam yi dañ doon faatu benn par benn yéefar yi di kontaan saa bu doomu yonent bi faatoo rek ñu tàccu ree ni doom ja faatu na mu dem ba dese benn doom bu góor muy muy sunu maam Ibrahima doomu yonent bi Ibrahima dafa nuru woon yonent bi ci taar ci yu baree bare bi mu génnee benn bisu ay nee nañ di dawal euh, fas wala gëléem lu mën a doon rek waruwaay la mu daaneel ko mu daanu bi mu daanoo fa foofu la ruuxam yam mu faatu jullit yéefar yépp nag tàccu ni ab tara yonentu bañ doon wax naan ab yonentu yàlla ko yónni ndóol na doomam yépp dee nañ keroog nag xaw naa laal xolu yonent bi waaye lim góor yàlla yi wax ni nitu yàlla xolam yàlla da cee fiir moo tax soxla du ca tàbbi bala caa soxlaa tàbbi yàlla faj moom dong nga fay xaj moom yàlla noonu la def ak yonent bi mu yabal jibril ne ko demal ne ko inna ataynaaka alkawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaaniaka huwa labtar ne ko jaxale naa ko déegi kawsara ëllëg yowm alqiyama mam maw dani hudan kawsarun qad xassahu llahu kawsara moo tax suñ mag ñi ñoo baax dégg nga jaxale naa ko kawsar déegi kawsara yonent bee koy yor ëllëg yowm alqiyama ku amul cofeel ci yonent bi doo ca naan moo tax borom ibnul muhayyib ni la uhibbu rasulallah dama bëgg yonent bi ñu ni ko lu tax mu ne laalli gadan an xawdihi laa uhallaw benn ngi noonu ñaareel bi mooy ngëneelu yonent bi même malaayika yi seede nañ même malaayika yi seede nañ kay dëgg la xaraamun ala al ayaami waaw kay ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam mu ni malaayika yi yàlla yi ñoom ñëpp dajaloo nañ di discuter ci jëmm ji yàlla yónni muy yónti yàlla muhammad mu ni ñoom ñëpp xaalat wax nañ bi fadlihi ci ay ngëneelam xam nga bu ñu demee ba malaaka di seede ngëneelu nit ngëneel la mat na yàlla wax ni laqad jaakum rasulun minaan anfusikum kon nit la ndaw ñëwee na leen boo xam ni mi ngi bàyyikoo ci yéen kon nit la waaye waykat ba nee na basharun laa kal bashar bal yaquutatun bayna alxajar nee na bashar mbindeef la ku yàlla bind de moo am xel di xalaat ami nopp am bët am tànk ak loxo waaye laa kal bashar bokkut ak mbindeef yépp de bal huwa yonent bi xam nga nu mu mel kal yaquuti dafa mel ni wurus wu ngalam baynal xajar ci yi doj mooy nit ñi ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mu ni waxannat sopp na kama xanna alxabibu li waslihi loolu ma ngay wax ca riñaan ga yonent bi bi mu waree dem ci riñaan ga nee na yàlla daa yàkkamti yonent bi ñëw yonent bi yàkkanti lool ci dem dajeeg boromam xam nga soppe bu war a dajeeg soppeem kenn ku nekk ni nga yàkkamtee gis ko noonu la yàlla meloon ak yonent bi wa xannat kama xanna alxabibu li waslihi mu ni nag xaraamun kon ala al ayaami ijaadu mislihi ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw jamono yii ñu ne maanaam alal ayyaam maanaam nañ ko tudde ak zamaan jamono jépp xaraam na ijaadu mislihi jéem a amal ku mel ni yonent bi moo tax jéem a tëkkale yonent bi ak kenn mu ni dafa xaraam ci jamono ndax yonent bi du kenn xam nga kañ lañ koy xam ëllëg yowmal qiyaam kenn ku ci nekk bu malaaka mi walee bufta bi ñépp faatu kenn ku nekk jóg war a wuy ji sa borom ku nekk sa bàmmeel say jëfi àdduna dañ la koy jóoral ci sa buntu bàmmeel nga war koo jël waaxu yàlla alaaji taala si sa daan na wax naan di wut si borom kartan gu ànd sañ-sañ ngay ab jaam bu néew kartan borom ah, kartan bu ànd ak sañ-sañ xam nga mën nga am kartan te doo am sañ-sañu def nangam waaye moom kartanam ak sañ-sañam ñoo lànge te moom lañ war a wuy ji fa ñuy xamante ni yonent bi du kenn kenn du moom mooy ku jóg sa biir bàmmeel bëgg a dem wuy ji yàlla sa jëf ya dalay doy sëkk boo xoolee ci kaw suuf gisoo ci yàlla muhammad da ngay tëddaat di xaar yonentu bee njëkk a génn moo tax mu ni ana awalu naasi xurujan isa bu'isu maay njëkk a génn man yonent bi benn su génnee ñépp génn kenn du dem fi ak yonentu baa ngi taxaw rek dañuy taxaw wa isa wafadu waxtu wu ñu àndee nag war a dem wuy ji yàlla nee na man may doon seen njiit su ma jiituwul yonent bi kenn du dem wallaay ndeysaan Mohamed nee na bu ku bëgg a dem wuy ji yàlla te yonent bi demul doo dem yonent bay jiitu rekk ñu topp ko wa qaadimuhum iza wafadu beneen bi ci des mooy yàlla day wàcce jant bi ba tàngooru jant bi kenn ku nekk saw ñaq nga man cee lab bu boobaa ñéppay tiit ndax kenn ku ne sa jëf dina la doy jaam ñépp bu ñu àndandoo dem ci yonent yàlla aadam ndax moom la yàlla njëkk bind mu ni leen nafsi nafsi sama bopp laa tal tey taluma kenn yàlla man la bindoon jël ci sama faar bind ci xawaa dugal ñu ci biir aljana ni ñu aljana ngoog fa kulaa minha ragadan haysu chituma waaye daal wala taqraba wala taqraba hadihi sajara fa takuna min azalimin aljana ngoog yaataa yumbe leen fu leen neex dugg leen waaye garab gi bu leen ko laal xanaa tànt bii dong ni mu tol kuñ ko joxoon ni la nekk fi oto bii bu ko laal nga war koo mën a bàyyi mais aljana na mu tol ñu ni la fu la neex duggal mais garab gi bu ko laal aadama nee na ñu laal garab ga maag xawa yàlla mere ñu wàcce ñu ci kaw suuf tuub nañ ñu mu wàcce ñu ci kaw suuf waaye tey ci yowmal am xamuñu nu yàlla yi def ak ñun ci jëf jooja kon nafsi nafsi ñu jóge fa dem ci yàlla dem ci yent yàlla Muusa ndax moom kalim la woon da daan wax ak yàlla da daan wax ak boroomam Muusa ni nafsi nafsi man it sama bopp laatal sama bopp laatal ni xam nga lu tax dafa am ñaar ñu doon xeex ma di leen àtte damaa xawoon a faral kenn ki nag ki ci des nar koo sonal ma dóor ko croisé xam nga Moussa yonent bi ak a bari kersa bu nit ñi ñëwee ni ko yaa rasulallah yonent bi ni bëreet jóg taxaw moom léppam yàlla la allahu akbar kabar bëgg a julli yàlla ni ko déedéet julli amul ci moom julli amu fi yamal xiyaam woor amu fa julli jeex na xam nga lu xew yonent bi xool ko bët yu tedd ya mu ne ko isfaatu shafa wasal tuxata laajal ma jox la boo koo bëgg a rek jox naa la ndigal ràmm moo tax borom téere yi wax nañ ni xam nañ ci yonent bi mbaax goo xamante ni benn ci xeetam yi du des te war a dugg aljanna ndax yàllaa ko waxoon ni ko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ëllëg yowmal qiyaam dama lay jox ba nga doyal lu waaye def yonent bi ndende bu yowmal qiyaamee nga xam ne yonent bee la man alal ayyaami ijaadu misli borom Ibnul Muhayyib ni man nag lenn rek laa bëgg moo tax kii maam Amari Ndaak tànn billaahi moo bëgg yonent bi nee na nee na ahinnu nee na damaa bëggoon rek gis fu bi teg tànkam ba jóg ñu ni lii tànk yonent bi la ahinnu ila taqbili mawti in alihi ñu ni ko borom Ibnul Muhayyib looy def mu ni damay sëgg foon ko jeexitalu tànku yonent bi waxul sax jëmm ji gis jëmm ji jeexitalu tànk yonent bi la wax ni su ma ko gisoon rek fu mu marqué xam nga yonent li ko yàlla defaloon bu dëggee ci xeer day marqué bu doxee ci suuf mu far bu dëggee ci xeer day marqué bu doxee ci suuf mu far kéemaan yi ko yàlla joxoon bokk na ci yonent bi jant du ko tiim lu naaj wi tàng kenn ku nekk dangay génn saw ñaq di siid rasulaay bu génnee ak keppaar moo koy tiim kenn ku ci nekk dangay am soxla ami jafe-jafe pour am ko yonent bi da daan génn dox ci àll yi montagne yi garab yi naan ko boo bëggee yaa rasulallah ñu soppaliku or nga jaay ñu dunde yonent bi xam nga lu muy wax lam uxlaq li haza dañ maa bind ngir lool ndeysaan jeexal foofu Muhammad ndax waa nee na daa mar moom borom ibnu muhayib bu gisoon fu yonent bi teg tànkam da koy fóon ndax mu màndi afi rusli nga wax léegi afi rusli man bil haashimi yu sabbahu borom ibnu muhayib dafa laaj dañuy afir rusuli ndax am na ci mboolem mursalun yi ma doon wax léegi trois cent treize lañ man koo xam ni yu shabbahu dinañ ko nuróoleeg bil haasimi yi ci sayiduna muhammad déedéet kon amul moo tax sunu sëriñ barzaxul maktum cheikh seydi ahmad tijaani yi daan ni kon man naa daw tafu ci yonent bi xam nga lan la tarbiya ay taalibeem pour ñu bëgg yonent bi salaatul faatihi bi ma uxliq dafa wax ni salaatul fatixi faqadtu rabbi walakin saaxibuha ida asurat laa yajidu man yaxus bi yadihi xata yuqiima salaatul fatix bokk na ci yaquutatul farida ci ay turam mooy julli gi nga xamante ni day tijji nit ki sa àdduna sa alaaxira lu baax macha allah ila axir yaqutatul farida wurus wi nga xam ni wenn képp la mooy salaatul fatih moo tax mu ni boo koy jàng booy jàng salaatul fatih say bàkkaar day set ku ko jàng benn yoon ëllëg yowmal qiyaam ñu nar laa dugal aljana muhammad ñu nar laa dugal sawara muhammadul bikkir yi nee na ñëwal nga poñe ma man bikkir yi ndax xam degere bi salaatul fatih am salaatu yépp baax na xam nga yowmal qiyaam pour nga xam sa kër sax salaatu ala nabi ngay def pour dem sa kër da julli ci yonent bi force pour dem sa kër moo tax bàyyi seenu xaar daan na wax naan fii ci àdduna ku fi nekk am fi ñetti fan dee dem sawara yaa fa yóbbu sa bopp ñu ni ko lu tax mu ni yonent bi nee na man salla maratan waaxida waxida sallallahu biha ashran boo jullee ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukk nga julli ci man téeméer yàlla julli ci yow junni nga julli ci man junni yàllaa ki malaaykaam julli ci yow euh, nga julli ci man junni say sa sa mbagg ak sama mbagg man yonent bi ñooy buuxante ca buntu aljana xawma maa lay njëkk duggam yaa may njëkk a dugg mu ni mu ni amet ñetti fan ku ko fi def te mënoo am junni salaatu ala nabi boo dee yaa yóbbu sa bopp sawar wala kenn yóbbuwu fa mu ni booy seetaan télé bi sax yor téere bi yor yor sa kurus allahumma salli ala muhammadin wa sallim salaatu ala nabi la dafa am sëlmal nag baneen salaatu am na am na ñoo xam ne dañ naan yàlla jullil ma ci yonent bi lu toll ni garab yi am na lim de bari na nag garab yi bari nañ mais am na lim am na ñu naan nang ma jullil ci yonent bi lu toll ni peppi suuf yi bari na mais am na lim am na ñoo xam ne dañ naan toq toqi ndox yi bari na mais am na lim am na ñoo xam ni dañ naan lu tol ni vague gi géej gi bari na mais am na lim mais salaatu fatihi moo jommal ñëpp ndax dafa borom dafa ñëw ni xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim dëgg-dëgg yow yàlla ni nga toll istiwaa rek moo moo ëpp asamaan ak suuf noo ko mën a qiyaasee nu yàlla jàppe yonent bi nu mu toll kenn xamu ko yàlla rek ko xam moo tax benn salaatu ala nabi day raxasi bàkkaar benn salaatoo ala nabi day dugal benn salaatu fatix day dugal nit ki aljana dégg moo tax ca nazif yi mu ni maa ngi leen di jox ay ngëneel ngeen yóbbaale ko su ngeen demee seen àdduna baax ci seen alaaxira baax ci ñu ni ko ngëneel la yan la mu ni am na ci ngëneeli salaatu ala nabi ñu ni ko banag ban la mu ni tafrijul hammi su fekkente ni danga am njàqare am tiitaange nee na del jàng salaatu ala nabi boo defee salaatul fatixi nag moo gën xam nga lu tax salaatu ala nabi yépp gaaw nañ mais salaatul fatixi ci gën a gaaw yaqutatul farida nee na ka tayril qataa laylan maa dabibi nam la salaatu ala nabi bi ngay zikkar ni mu lay yóbboo ci yàlla salaatul faatixi bi ngay sikkar ni mu lay yóbboo ci yàlla seen degere gaawaay ñoom ñaar nee na dafa mel ni ka tayril xataa laylan yow miy zikkar salaatul faatixi pi tax muy naaw ci guddi nga di mbëkk rek di dem yow miy zikkar baneen baneen salaatu ka dabibi nam la da mel ni xorondom wuy dukkat ñoom ñaar tolloowuñ moo tax ma baaxee foofu sunu mbokku taalibe cheikh yi jërëjëf imaam wax na léegi ni taalibe cheikh boo nee taalibe cheikh laa doo wird doo wazifa doo xadara doo taalibe cheikh dëgg la ndax yooyu mooy dugal nit ki ci tariqa bi bàyyi ko mooy génne nit ki ci tariqa bi jàpp ko mooy dugal nit ki ci tariqa bi bàyyi ko mooy génne nit ki ci tariqa bi Seexuna tiijaan yi nag ñëw daal di indi teraanga boobu nga xamante ni mooy salaatul fatih ñaareel ba muy jëw jawharatul kamaal lépp ay sa ay salaatu la yu ñuy jullee ci yonent bi jawharatul kamaal na tiijaan yi laata muy am junjung yii fu nekk jaar na fa pour kenn bañ laa jaaxal wër na fu ne góor yàlla gu ne dem na ci yow loo am da ko koy jox dalay tarbiyu ba nga jeexal nga ni ko fii laa mën a yem mu ni doyalaguma bu déggee geneen góor yàlla dem ci moom moo tax lu waaye di am danga koy sàkku lu waay di am danga koy sàkku bi ñu demee ba mu wër góor yàlla yi mu xam yépp ba ñépp jeexal ah mu mel ni nag dafa wéet ak boromam ñaan ko mu nandal ko ci mar wi nga xamante ni mar na ko ci la ko yàlla yebal nag ca abi samoon mu dem abi samoon teewlu fa ñi xam ñépp borom téere yi nee nañ bi mu demee da doon jàng wadduha wa layli ida saja maa waddaaka rabbuka wa maa qala wala al axiratu xayrun min al ula wala sawfa yutika rabbuka fa tarda nee na bi mu àggee ci foofu nee na cheikhu tidiane yi dafa gëmmoon nee na bi mu gëmmee ngelaw lu neex di ko mu ciy ballamtiku parfum boo xam ni mësu koo xeeñ xam nga rasulullaay nit ñi buñ mësaana bëgg parfum nu ñuy def dañuy bàyyi ba mu ñaq ñu jël musuwaar fomp ñaq wi def ko ci bërigo ndox ku ñëw ñu tàngal la jox la boo laalee ñeen fukki guddi foo jaar parfum bi gunguni xayrul bariyati dégg nga parfum bi koy xeeñ Seexu Tijaan nee na mësu koo ballamte nee na mu mel ni ak melax mooy fel ñeent ci ay bëtam nee na mu ni na sig na xippi pour xam li xew nee na ci la xool ay bëtam jàkkaarloog sayiduna muhammad yonent bi ni ko salma chita fa inni u aminu ko mu ni ko ñaanal li nga bëgg may wax amin Seex di laaj yonent di laaj yàlla yonent bi naan amin moo tax maam Sidi Xaaji Malik radiallahu anhu nee na te bërëb bii ma toll nee na bañ fa tollee yii la ko yonent bi garanteel ñu ni ko yan la mu ni al ula damaanul Mustafa Adnaana li xisbihi mawtu ala al nee na garanti bi mu njëkk a garanti Seexu Tiijaan yi mooy sa wird wi ku ko jot di ko liggéey buy dee ci ngëm yàlla lay dee ñaareel ba mu ni ko taxfiifu rabbi sakraatil mawti anhum min al mawuudi duuna al ñaareel ba mooy sukuraat dafa metti bu njëkk danga daan gis kuy faatu koñ bi mu dëkk ñéppa a yëg ni am na kuy sukuraat ndax ruuguy génn ci nit dafa diis alquran nee na wannaziaati garqa wannashitaati nashta nee na am na ñoo xam ne bu ñuy génne seenu guroo nee na dañ koy bipp ko mu génn day mel ni caru dëkk bu ñu roof ci biiru nit mu lang ñu jàpp ko rek xëcc dég yi laxas butit yi di yi génn dagg génn yi ci des des ala sabili misaal moo gën a diis lool mu ni dee du ñëpp nag am na ñoo xam ne wan naashitaati nashta ñoo ñooy waa kër Cheikh Seydi Ahmad Tijaani moo tax mu ni mu ni lim maam Maodo nee na lim ko garanteel mooy tax fiifu rabbi sakraatil ci saraat su woyof moo tax taalibi Cheikh da ngay dégg ñu ni feebar na ma ngay nelaw ma ngay jàmbat lii jàpp na léegi julli na génn nga yow mi koy xool dem dikk fekk mu leer naññ tëdd di xool bët yi asamaan fekk ma ngay xool ruuga muy dem rafiqal aala yëgoo sukuraat yonent bee ko garanteel Cheikhuna Tidiane beneen ba ca des mu ni jawaazuhum ala kawaahilil malaa'iki moo tax maam Seydi Hadj Malick yàlla nañ ko yàlla fayal nga sunu mag ñi ñoo baax ñoo tedd ñoo dund leer ba pare di ñu ko nàmpatal jawaazuhum ala kawaahilil malaayik ala siraati minnatun min malik nee naa lëg qiyaam jéggi siraat xamoo ni ñun ñi ñëpp kenn ku ne di nga jéggi siraat siraat moo gën a ñaw mèche bii nit ñi jigéen ñi di léttoo xanaa sew na siraat moo gën a ñaw lañ set xanaa kon ñaw na siraat moo gën a dëng mën a yëngatu jaan joo dóor ba mu dagg te déewagul na muy def noonu la siraat di def te alquran nee na wa in minkumu ila waariduha illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya nee na amul kenn ci yéen kenn góor jigéen mag ndaw lu dul da ngaa jéggi siraat te xoolal siraat dafa tiim sawara noonu mu sewe noonu mu ñawe noonu muy yëngatoo noonu nga cay jéggee ku mbas dem sawara waaye yàlla buñ mbas waay wax leen am maam Maodo nee na bokk na ci liñ gaaranteel Seexuna Tiijaan yi ci kuy zikkar salaatul faatihi jawaazuhum ala kawaahilil malaayika leer ngay am xam nga malaayika yi leer lañ xuliqu min nuurin dañ leen a bind ci leer laa yaasuuna allaha ma amarahum malaaka du mooy yàlla wa yafaluuna maa yumaruun lu leen yàlla digal ñu def ko moo tax leer lañ seen zahir ak seen baatin baal leen ma moo tax nit dina jaamu yàlla ba am maqaamay malaaka rot su jootal ko waxuma nit mais am maqaama malaaka rot su jootal ko waxuma am maqaama nit rot su la dama ni nit dina jaamu yàlla ba am maqaama malaaka rot su jootal nit ko xam nga lu tax malaayika yàlla da koo bind mu set leer mënul mooy yàlla même su ko bëggoon pays ba mu nekk moo amul mooy yàlla kooku leer rek moo fa am nit nag yàlla da koo bind ci euh, fitra salima bu set wécc wàcce ko ci pays bu danger boo xamante ni ay xat-xat ay gàllankoor doo nga fa nekk moo tax ku góorlu ba mucc fa da ngay am maqaamam malaaka rot su jootal la moo tax usjudu li aadama la alquran wax su jootal leen doomu aadama fa sajadu ñoom ñëpp ñu sujjóot illa iblisa istisnaul munqati la iblisa ci bokkul dégg nga fu ma nekkoon déedéet ah waaw kay bu ñuy jéggi siraat malaaka yi leer googu nga am yow miy zikkar salaatul faatixi boo jàkkaarloog malaayika yi leer ga mooy tàppe ci seen bu la leeru malaayika yi frappé day tàppe ci sa jë nee na ñu jël la tungóob la jàllale la siraat moo tax di nga gis koo xam ni dañ naan day jàll ba pare naan siraat kañ lañ koy jéggi fekk yow jéggi nga siraat bu yàgg jawaazum ala kawaahilil malaayika loolu lépp nag ki ñu ko may mooy yonent yàlla muhammad ci leeram ci mbaaxam moo tax mag ñi tagge nañ ko nu ne boo gisee mag ñi daan ñu portaleel yonent bi pour ñu bëgg ko la li mu wax ci canaba ci nume boo demee ci dëkku diine yëpp moo fa am maam Sidi Hadj ma portale na yonent bi nu ne avant muy nekk leer bi mu nekkee leer avant muy doon doomu aadama bi mu amee jëmm bi mu biñ ko juree bi mu màggee bi muy dox bi wax yu gi di ñëw ci ñoom moom bi muy tarbiye saxaaba yi ba bi muy faatu ba biñ koy denc ba la jëmal xiyaam nu muy dekkee Mamadou bàyyiwul dara waaye man bi ma ci gën a neex gën ma ci saf waru bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane yal na yàlla yokki leeram mooy bi muy portale yonent bi ci wal kaffu maa darabat léeg-léeg ndeysaan ولم يكن له الكف ما لرب ليسا انوثا ولا ذكرا ليسا أنوثا ولا ذكرا ليسا ما خادما عاب عيب ولم مولانا والكفر ما درب ليسا أجدب جندي عنا محمدا محمد البشير ليسا يا لله ولسيا ليسا أبدا مدد لي nañ set wicc lu ñu wax mu baax nee na turran ñoom ñëpp bis naa ma madahu ñoom ñëpp a tagg yonent bi waaye xoolal walaysa yudraku bi akwaabi yaaru nee na kenn ku ci nekk la nga wax ci yonent buñ ko dajaloo dafa mel ni ku yor askook dem ci géej gi rek tànk lo kaabu ci la bokk saan ci la bokk bu Seydu ñi ñëpp tagkat yonent bi la ñoom ñëpp fent nañ jëm ci yonent bi waaye kenn ku nekk ci ñoom sa wax ji seen way yooyee leer la ak i sekkare waaye jeexalu ñun ci yàlla Muhammad waxuma ñooñu sax waaye Pape Mor Gueye li mu tagg yonent bi moom it ci biir la Pape Abdoulaye yow ci biir nga li nga tagg yëpp Cheikhu Tidiane yow mi waxit li nga tagg yonent bi lépp Mouhamadul Basir li nga tagg yonent bi lépp bu ñu ko boolee dafa mel ni benn kook suñu tànkee ci géej gi rek li ca des lépp mooy yonent yàlla nee na nee na dayoo xam yonent bi mooy bachar la mbindeef la léegi nag Cheikh Tidiane may ma foofu noonu ba fa Mouhamadul yi àggee dafa tag abu muhammadul bashir busayri moo bind hamziya waaye moo bind burdu tamit bu weeru gàmmu feeñee rek mawlaaya salli wa salim daiman abadan ala habibika xayril xalqi kulli الخلق كلهم مولاي صل وسلم Ndeysaan شيخنا تجان قدوتنا شيخ المشايخ يا توبى ليسن دائما ابدا ليسن شيخنا تجان قدواتنا شيخ المشايخ يا تو عن شيخنا تجان قدوتنا شيخ المشايخ يا توبى لنا ظهر al cheikh al islam xaaji ibrahima ñes baay nee na ida saara xayru naasi surtout waraahu moo tax suñ mag ñi ay man xuma luñ doon abal qalb illa an yakuna mutayyaman xalifa xaraamin bi nabiyi muhayyama boo duggee xalifa xaraamin bi nabiyi muhayyama amet dama ni bàyyi nee na ida saara xayru nnaasi déglul <laughs> ida saara xayru nnaasi surtout waraahu nee na bu yont yàlla tegee tànkam ba yëkkati man bàyyi ma teg sama tànk wa in xalla yowman fal masiru baidu moo tax bu weeru bu bu weeru gàmmu musaana teru danaan hani an li ibrahim laaha hilaaluhu hilaalun badaa na jamaalu moo tax boo leen nattee ñoom ñëpp kenn ku ci ne dafa xuus ci géej yi yonent bi xuus ci leer yi yonent bi ba nandal ci say taalibe moo tax ñun ñëpp a bokk gis nga fii boo doon tànn tey jii ay taalibi yu nekk a ngi fi waaye tey waa kër Cheikh ba ñoo xewle boo xoolee ñëpp a bokk benn bëgg-bëgg ndax yàlla rek la ñuy wax moo tax bu ñu demee boo ci maam Amari Ndak ma joxe micro bi xaabaabal naa tey jii dafa wax ni ndeysaan ndeysaan ah, Mohamed xam nga ndeysaan ndeysaan ndeysaan xam nga maam Mari Ndak maanaam nit ñi dañuy gàmm benn bis muy gàmm ñaari fan xoolal dinaa koy leeral lu bari ci gàmm yi damay wax ni yonent bi ñii dañ ni guddi la judd ñii ni bëccëg la judd ñii dañ ni guddi la ñii ni bëccëg la dégg nga ñii ni bu ñu ko mënee tuddee matwa aminatu bintu wahbin ba ko gandug leer ga attaqué nee nañ ci fajar ji la ci xaaju guddi la bi fajar jiy fenk ci la sayduna muhammad gane àdduna moo tax ñu ni qaalu naharan wa lan ñii dañ ni bëccëg la ñii ni guddi la la qiila budi lan am na ñoo xam ne dañuy dafa tàmbalee ci guddi gi wa tatmimuhu qad kaana fi lfajri ca fajar ja ci la sayduna muhammad taxaw mushiran rafian rasan bi xam hamdin li mawlahu moo tax maam amari ndaag ni kaay leen sama taalibe dee leen dee leen def guddi gi dégg nga bu subaa ngeen yendoo ko bëccëg mais ni ñuy gàmmoo guddi gi ku ne xam na ko tant yooyu bari ku nekk di tudd yàlla baytaala xaar nee na loolu sayru la ilallahi dañuy dox jëm ci yàlla ku dox jëm ci yàlla nag fu ne ngay fëgge ñii dañuy zikkër ñii dañuy jàngal quran ñii dañuy saraxe pour dem ci yàlla ñii di dox ak mbokk pour dem ci yàlla ñii di waxante lu rafet pour dem ci yàlla yoon yi ñuy demee ci yàlla moo bari waaye bu ñu àggee ca xadara ba mooy bisu wàcce téere ba xadara ba moom sañatuñ faa bàkk ku dul yàlla moo tax maam na Thiénaba day jublu penku rek

ñetti bayit yooyu da koy xaare seexu canaba mu fi ne soo agsee mu jóg ca géew ba mu ne woon ñëw sukk ci kanamu seexu canaba dékk ko micro yi mu jël ilallahi asku ba sa qalbi wa wajdahu ilallahi asku ba sa qalbi wa wajdahu li bondi habibin lam ashaqattu bondahu منايا من الدارين لقياه وحده يضيق النتاق سار عنه وبعده وهل يالف الإزماء من يبتغي الرياء صلاة على النبي لقد مسنا طول الفراق بنصبه لقد مسنا طول الفراق بنسبه فصرنا نحب الموت ضيقا بكربه فيا ليتنا متنا احتراما بحبه يسير علينا الموت في جنب قربه ومن قصد المحبوب لم يسأل البخيا اللهم صل على محمد بالمسيا أمتنا على تصديقنا باستفائه فإنا وذو الأشواق يعيا بدائه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل على محمد في البشر وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمدنا على تصديقنا باصطفائه فإنا وذو الأسواق أعيا بدائه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل على محمد من البشر xadara bañ toll la moo tax sëñ cana ba day bamtu rek fa ya rabbana fi ardihi wa samaihi فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه وواحد في خلقه وواحد في خلائقه لسان لسان فيا ربنا في أرضه وسمائه وواحد في ملكه وواحد في ملكوته لسان بصره وسمعه وواحد في يمينه وواحد في شماله فيا ربنا في أرضه وسمائه وواحد في ذاته في أرضه وسمائه في أرضه وسمائه وواحد في قدره وواحد في قدرته في أرضه وسمائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا fii nag buñ fi agsee moom la Alaaji Taala doon wax naan aw saan wuñ sànni la moo tax cana ba seen baatin leneen la aw saan wu ñu sànni fa musaana toll alay taalise bu jëlee kàddu danaan dañoo sànni woon daaw aw saan mu rëcc sunuy loxo romb sunuy bët ñuy déglu kàññi saan wa ak sunuy nopp ba tey jii ñu ngi koy door a déggaat saan wa mooy lan mooy seexu ba dafa jàpp ba sell tàkku saan mu ànd ak muqaddam yi ñoom ñëpp ñu génn zikarkat yi zikar ñuy tagg yonent bi di tagg yonent bi ñu génne ci buntu kër gu mag gi jubali penk bi maam Amari Ndaak fi mu tëdd bu ñëwee ba dugg ci bunt bi kàbbar imaam kàbbar ñu kàbbar ci ginnaawam julli tàkkusaan jooxal yàlla waxtoo wi moom ba génn ñépp ànd ak laab ñépp ànd ak njàpp ñépp dox bi ci leer yonant bi ku ne jóg taxaw jublu penk ñu ni yàlla diine ji nga ñu dénk su noppee mat yàlla na fi àdduna bi jóge mu ni saan woowu mooy saan seexu ca na ba sànni buñ demaatee ba déwén ñu taxawaat fa di waxaat isa diinu lam yakmul fala kaanati dunya mu ni foofa la ñuy dégge sànni kàng moo tax ñu bëgg taalibe bu nekk loo yàkkamti yàkkamti na nga fekke fu Seexu ba wàccee téere bi fekkere baa ngi noonu Thiénaba daawuñu wax sérémoni léegi la ñuy wax cérémonie mooy bisu wàcce téere ba dañ daan wax wàcce téere rek téere bi ñuy jàng muy Ibnul Muhayyib fi ak jeexul gàmmu gi du tëj fa ñu koy jeexale nag ci ñetti bayit yi ñu jeexale foofu la ko Seexu bay wàccee su ko wàccee nag bàkk yàlla ñaan ñaanal taalibe yi bu boobaa ku ne sañ a cheikh baax na. tamaam tamaam. ku bëgg sax kaddu moom Amady nag defal nii ñu màggal. li an al wazifa tuqda wa liqaa'ul ixwaan laa yuqda. sam daje sama taalibe yi ñu daje rek kenn ku ne di xool sa morom te yàlla tax bëggante te yàlla tax moo gën wazifa ak wazifa ni mu toll. xoolal la mu wax ca wazifa walaw alimtum maa fi l wazifati min al fadli ataytumuha walaw habwan bu ngeen xamoon ngëneel yi ne ci wasifa di ngeen dem di ko teewee donte da ngeen di baf ngu di pour dem fekke ko mu ni nag liqaawul ixwaan yi moo gën wasifa ñu ni ko lu tax mu ni li annal wasifa tuqda wasifa boo ko faatee mën nga koo fay donte sëb néeg ngay toog yow dong yor sa kurus mën nga koo fay waaye liqaawul ixwaan yi laa daa fii bu xasee tas jotaay bi xanaa déwénati waaye tey moom kenn mënatu la ñëw di woowaat nit ñi ñu fi dajewaat daje bi yàlla rek a tax kenn ku ne na jox sa morom loxo ni ko baal maaq yàlla nañ ko fi teewe déwén ñuy nuyu nag suñuy rakk soxna Faat Seck mu bàyyi Serigne Assane gis naa ko fi léegi bi may nuyoo jotuma leen a gis soxna Assa mu bàyyi móori defe naa ni waaw kay soxna Assa mu bàyyi móori ndeysaan oh. soxna yu baax yooyu suñuy rakk suñuy xarit yàlla yàlla taxaw leen lii am na solo sëñ Yaasa ngi may dey wax na dëgg suñuy doom yiñ àndal bi may nuyoo dama leen dama leen a sama bët a leen jël ndeysaan muy sëñ Cheikh doomam la mu tuddee ko magam Serigne Cheikh mu bàyyi Serigne Mouhamadou Seck mi ngi nii ànd ak man ànd ak ñun jàng ba mokkal alquran moom tamit jàng xam-xam ba tabaarakallah xale yi ay jàmbaar lañ mi ngi ànd ak rakkam nag ah sama turandoo kenn mësu koo gis ci tournée yi ki ma sëñaas As gars yi kenn mësu koo gis ci tournée yi moo tax gollam yéen seen bés bi tey dafa ala dawme wala dafa ala canaba wala dafa ala gollam rek kon yàlla nañ ko fi teewe at yu bari ñu ngi baalu àq bu baax a baax waxtu bi ñu téye gudd na am naa ci kersa waaye sama xaal moo ma jës bu rek ma agsi fii yàlla nañ fi teewe déwén wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëriñ nee na mi ngi leen di seedeel nii li daaneel ñépp moo ko daaneel nee na fii ma toog ëmmatuma lu may wax ndax xol bu set am kontante kontante koo xam ne am na fu ma commencé waaye wallahi amul fu mu yem nee na waa gollam dañoo raxas ndab li ba mu set bi sëriñ yaa la ñëw duy ko ba mu fees dal El Hadj Pape Mor Gueye jóg jël kubéer gu set ëpp ko ci ndab loo ciy defaat gasi rubay chance gasi kon jeex na sëriñ bi ne bëgg la fii mu toog nee na suñu xalifatul aam suñu baay sunu yaakaar bàyyi sëriñ Xasan Seck yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mu ànd ko gër weex leen amin na moom sax gis nga buñ ko yebbalul woon mooy ñëwal boppam wóor na doomam sëriñ Bay Seck bi wóor na alaaji Adamu nii mu jël doomam jël oto jox ma bàyyi morloo def ci lu rëy woo ma téléphone ni ma gasoil ba oto bay def moom ndeysaan man mii maa ko ci def yónne ma xaalis xaalis boobu moom laa jënd gasoil sol ko ci oto bay aas sëriñ Mor Lo yàlla na wér nuyu nag imaam sëriñ Babacar mii toog bu baax a ngi bu bëgg tarixa Cheikh Sidi Ahmad Tijani ku gëm magi démb yaa ngi toog lépp loo jiitee maam yàlla na yàlla nangu loola gërëm nag chef de village sëriñ Adama moom gërëmoon na ñëpp waaye xol bu sedd rek moo tax ma dikkat ci lii waaye sëriñ bi daal mi nga xam ne ne wow moom ci koom mu dong lay yëm gërëm nag ñi màndal ñépp bu doon man kese la kon yëf yi du taaroo nii li Souleymane gi wax président alaaji Adama guddi ak bëccëg suba ak ngoon bu ma ko fëggee mu ma sëriñ bi jekk naa loolu nag bu la ko sa rakk defalee sës ci yow rek te du la rëkk te nanguwul ku la rëkk kon foo toog ci mbooloo war nga koo gërëm war nga koo ñaanal yàlla yàlla na yàlla wéral la reculer rek noonu laa lay ñaan nga wér amin kenn ku ne la nga man bu nu ko bàyyee ak yow waaye jàmm ni ñooy àdduna neex li sëriñ Adama nii di woy di conférence waxtaan dama ko man mënuma ko yàlla mii moo ko jagleel Maodo Madi Cissé bu baagante woon fii bu taxawoon fii xuus ci rasulullaay dem dama koo man kenn ku ne la nga man mun ko bàyyi ak yow àdduna neex El Hadj Pape Mor toll ni gàmmu canaba ak ni mu toll ne bi sëriñ Aadi nekk ci bayt mu ji billahi lazi laa ilaha huwa bu neexoon yàlla sama ruugi fii lay rob dégg naa ñeent bit bali fital yu tàkk billahi maa ko dégg ci sama nopp jotaay bii jotaay yërmande la ku fi jóge yóbbaale bàkkaar yow yaa ko teg sa bopp Adama dañoo raxas di ñu raxas ban set wicc lu ci des mooy ñaan sëriñ Mbay Babacar Seck yow nag yaay ñaanal tey mbooloo mi yow laa ko sas yaay doom Mbay Asan Seck mu jël otoom ak sa jëm boole ñaanalal mbooloo mi soo paree la ma teg sirru laa koy defee yàlla faj aajo yi ci zaayir ak ci baatin yéen takkatu yeneen yi jiitu yaa sant na leen ne la waaw sëriñ ma dikkee dama ko bëggoon a laajal addiya waaye addiya ji na man bii mag koy jox waaw sëñ ma dikkee yow toogal su ma génnee addiya ji ñu waroon a laaj yépp am naa ko man naa ko te dinaa la ko jox bàyyi sëriñ bi ñaan yow amin